of roots. As you can see on your screens, the parade commander, Colonel Greg has just got the, the go-ahead to, to march out the parade from the from the from the Independence Stadium that is out of the field, and now they are going in with a quick march. This is one of the most interesting uh, events you can ever witness in the annals of this country, especially in the inaugural annals of this country. Uh, spectators, as you can see on the pavilion, are all enjoying themselves despite the sun being very, very hot. To them, it seems the place is just as cool as anywhere because they are overjoyed and they are overwhelmed with what they've witnessed today. That is the inauguration of their president, who is now given the due mandate to take care of the affairs of this country for the next five years. By the way, coming for the parade commander min keda uh, ah, colonel pierre menditi anara si superintendent ansu kinte sane his excellency president ñing ay droit dila pro ese parade ñing wala ñin police on ning ay moñol mi ñan ko machola filo ko ten police machi findi a ah, afana bol ke ka sain tanting ke machi ni ke findi den a ah, jamit diari mbake bao nyimu kulete ko a aje man diya nyimu si mama we kulete min bebe jang mote in no la fa kake kenya min e ka trale drong ye min no je o fo je bari ka foko abe nyamin jar jar ko fo moye a wum ko la bag e be julu dimal kosila ba social be match kula police be match kula immigration be match kula paral be match kula Ah, anin duwañol fana mi maaj kula anin immigration ol anin do côté nin do ngol a ah, be baka sarano dal a ah, aida <laughs> am na mu interesting trop trop trop man mi de explain li sax na naa man da <laughs> suma sañoon sol uniforme rek join leen maajale ak yaay <laughs> iya, yëf fira rafet na man buma ma nekkee ci jataayu mel ni, Aboubacar jigéen ñi laa dee gën a seetlu eh, parce que boo ko seetloo fi mu nekk nii eh, fi jigéen ñi nekk rek góor ñaa nga fa seen boor fi góor ñi nekk jigéen ñaa ngi seen boor eh, ndaxte li nga xam ne moo fi xew nii tey parade commanda bi colonel Père Mendy nga am superintendent Ansou Kinta jàppale ko ci wàlli Gambia National Army bi boobu tamit nga am jiite ko di second lieutenant Lamine Damfa Ah, ci wàlli jigéen ñi nag second faatu Fatou Badji navy bi nga am Ibrahima bi Jallow general justice nag nga am jigéen Sidiya Kuja bi mooy ku góor ki ki jiite jigéen ñi mooy Fatoumata Touré Seydi ah ñoom ñëpp liggéey bu rafet ah, police intervention bi jigéen ki ko jiite mooy Seynabou Badji ci wàlli góor gi ASP Fodé Conté Euh, ci wàlli kolas wàlli ñang ami flank lieutenant bi di alaaji ndongo Gambia immigration bi nag ASI Aliou Faye moo leen jiite ci wàllu jigéen ñi ASI na Koli prisons jigéen ñi ASP Bintu Sané ci góor ñi ASP Ibrahima Cissé Gambia Fire Rescue Services góor ñi station officer Yaya Fanne jigéen ñi SO Fatou Bojang Eh, ci wàlli douane yi nag Gambia Revenue Authority nga am eh, jigéen collector Umi Sonko góor gi nga am collector Lamin Mare ah mbir yi nag eh, nii la fi tëree léegi nag am nañ ndigal ci njiiti réew mi ne nag fi mu nekk nii eewi na leen xam naa li cee war a tegu si rek mooy kàddu yi nga xam ne moom la njiiti réew mi war a gaaral fii ci kanami mbooloo yi nga xam ne moo fi teew xam naa ne lim fee digle si eh, li ci ëpp yëpp moo di nañ booloo liggéey jàppalante liggéey suñu réew ndaxte ñun ñëpp benn lañ eh, moom dig ñu li nga xam ne moom la fi def wala won ñu ko eh, jaru ko sax ndax ndaxte mbir la moo xam ne ñëpp a koo gis xam naa ne dina waxit mbiri ndaw yi nañu góorgóorlu réew mi ñoom ñoo ko yore ji ëllëg ñu ne ñu tàccul daxa baa ko wax Euh, ñu tàccul président Jammeh na xam ci suba ba tey tàccu yaa ngi fii jib duyu euh, daw yaram sax mooy ndeysaan ajaatul boo jàng président bi bi mu waatee ba pare na sukka ci ronam mu ñaanal ko te xam naa ne nekkuma ci xolam waaye ñaan yoo xam ne la ci xolam bi la ko tibbee ndaxte sa doom boo xam ne eh, mbooloo mi teew yëpp ñoom moo tax mu toog ñaan yi ko ñaanal xam naa ne dina ko jikk te yal na yàlla nangu ñaan yi eh, loolu la Boubacar Adja Fatou Assome bi loolu la def doom bu nekk wala jigéen bu nekk dafa ñaan yàlla doomam raw ko doomam sut ko fan doomam ëpp ko tur te loolu mooy li nga xam ne moom la Adja a Assome bi di bànneexoo tey ci jamono jii nii. dafa am dafa am lu ma si doon teg sax ma ne ne ah, lii jàngal la boo xam ne jàngal la réew mi yëpp président bi ak nu moo nekk président ak ñu ko tooba yëpp gis nga mu ñëw suka si doon yaayam ah, di di sàkku ñaanam loolu lu am solo la si doomi aadama ah, mu ñëw wane daal nit ki doo am am place. nga xam ne sa kilifa doo ko mos a doo ko mos a romba waaw loolu moo tax soose dañ dee wax beneen beneen beneen adage beneen ñu ne nit di mën a mag ñëpp ba mu des sa mag waaw si si lu gàttal yaay ah, noo mu ni mag mag mag doo ko mën a mag waaw loo moo tax président bi ñëw jàngal ñu fi ñëw sukkal ko xam naa Balde moom dañu mën a wax si pol <laughs> la la Aboubacar man dimbale la yoo yaay borom Igra léegi nag dang dee dégga ah, dang nga xam ne dañ dégga ñooy waare so si hadith yi ah, wax nañ ni ne tànk eh, dem ajana daal si sa tànk yaay si roni tànk yaay la nekka ah Ibrahima Balde jërëjëf fàttali nga ma <laughs> ah, loolu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko wax si hadis bu wér mu ne doomi Adama ah, sa arjana mu ngi so doon tànk yaay waaw te président bi su ko si doon tànk yaayam su du dara sax mën nañu wax ne jël la arjana bi foofu noonu lañ ko waxe waaw because lu ko yaayam ñaanal am na yaakaar ne dina nangu because ah, la maa ngi doon déglu last time benn kilifa bu mag mu doon wax mu ne nit yi.